tey ma bàkk la kañ yow boroom xol bu ma way la bégal la boroom yërmaande bu bëri déglul te xerew lu nax salaamaaleykum mbokk yi faral di ànd ak seen mbokk Cissé Leral dal leen a jàmm ci seen formation photoshop ci vidéo bi tey incha allah ñu fas yéene leeral lu ñuy wax euh, sélec ñu euh, fas yéene dugaat continuer ci selection tool comme ni ñu ko waxee ci vidéo bi passé donc ci euh, vidéo bi passé gisoon nañ lu ñuy wax euh, rectangle tool wala bokk marquee tool aussi donc tey ñu ñëw fas yéene gis lu ñuy wax lasso tool boo ñëwee ci photoshop deuxième sélection bi lasso tool moo nekk nii donc boo cliqué ci kawam te di nga gis ne am nga ñetti façon sélection yoo xam ni mën nga koo def ci sélection boobu euh, njëkkee ci première bi première boo ñëwee par exemple ñu ne dañoo soxla dañoo bëgg a selecté web yi donc mu muñ bësee alt daal di xëcc zoom ci jour bi mun nañ koo def nii donc ñu ne web yi lañ soxla boobaa da ngay leen da ngay commencé da ngay am benn starting point donc boo ñëwee fii nga commencé da ngay cliquer boo cliquer rek da ngay téye amul bàyyi ba keroog ngay lan ngay pare fi nga xamante ni euh, foofu la sa sélection di yem ok da ngay bës téye rek daal di xëcc souris bi ngay xëcc euh, nu muy demee noonu noo lay toppee comme genre benn dessiné lay doon quoi. ok donc da ngay wàññeeku ba fi nga xamante ni mooy sa sa starting point mooy fi nga xamante ni moom nga tàmbale woon donc ok fii lañ tàmbale woon boo ñëwee ba fi nga tàmbale woon nga dafay bàyyi nga bàyyi souris bi donc da ngay boo bàyyee da ngay gis automatiquement moom da koy selecté comme ça donc boo defoon J euh, da ngay gis ni lan amaat nga ko da nga koy amaat feneen quoi donc moo nekk nii da gis ni lan way boobu nga selecté amaat nga ko moo nekk nii Euh, ñu ñëw ci deuxième sélection bi sélection yi dañoo gën a yombante donc ça dépend ci yow boo paree mi ngay bëgg a utiliser comme que formation dañuy jaar ci bu nekk ak bu nekk nu muy am na ñu gën a yomb euh, bi moo nekk ni polygonal lasso tool donc euh, polygonal lasso tool nu muy fonctionner mooy ay points moom da ngay dajale ay points par exemple lañu dañoo bëgg a tànn muus bi quoi d'accord muus bi lañ soxla. dañ ne fii la ñuy tàmbalee fi mooy suñu starting point dañuy def benn point fii donc boo defee point fii après nga daal di commencer cliquer ci sa côté càmmoñ ci souris bi rek di cliquer di dem ci point yi di comme ça ok boo juumoon par exemple ñu cliquer fii par exemple bu boobaa noo koy noo rectifier mooy lan da ngay bës delete ci ci clavier bi boo bësee delete rek ah, da gis ni lan moom da koy lan da koy effacer par exemple dañoo juum ñu cliquer foofu boo gis ni lan da koy effacer nga daal fi nga xamante ni moom nga doon def comme ça dajale say point ok Euh, donc boo utiliser polygonal lasso tool boo ñëwee ba ci genre côté place yi nga xamante ni par exemple egg nañ ci ruq bi mais dañoo soxla di nekk ci kaw jarul ngay bës ay espace wala yooyu moom boo xëccee rek boo xëccee yóbbu ko rek moom dangay gis nan da lay yóbbu ci lan côté boobu nga xam ne moom nga bëgg a sélecté nga daal di continuer def sa lan def sa sélection sélection nañ bu ñëwaat ci fi nga xamante ni moom lañ tàmmale woon muy lan suñu starting point suñu starting point fii la woon da ngay gis ni lan boo cliquer ci kawam rek sélection bi day daal di dikk lan automatiquement comme ça donc mu daal la koy selectel comme ça déjà selectel na la mu wusi ba pare bu la neexee nga daal def contrôle J mu daal la koy defal ci beneen laaya par exemple euh, wala boog par exemple nit ñi dañoo bëgg dañoo bëgg a yokk ci sélection bi bu ñu neexee euh, boo bëggee yokk ci sélection bi par exemple beneen façon sélection aussi mën na nekk da ngay ñëw polycanal lasso eh, dañoo bëgg a utiliser tey par exemple magic tool magic eh, lasso tool bu ñu cliquer ci kawam dañoo bëgg selecté li nga xamante ne mooy muus bi donc mën nañoo ñëw fii ñu daal di tànn eh, bii mooy yokk bi bi mooy wàññi bi comme ni leen ko waxee woon sélection tool yëpp ñu bokk bii nii yokk ak wàññi wala aussi tamit shift ak alt alt mooy wàññi shift mooy yokk donc bu ko defee ñu daal di ñëw fii commencé sélectionné li nga xamante ne mooy muus bi par exemple Euh, comme ni ñu ko waxee première sélection bi da ngay dessiné deuxième bi da ngay def ay point troisième bi nag moom euh, da ngay ci benn point rek bu ko defee après nga daal lan nga daal di wër li nga xamante ni moom nga bëgg a sélectionné euh, Photoshop ci mooy utiliser Magica mooy utiliser moo tax ñu tuddee ko Magic Lasso Tool donc sélectionné ko automatiquement moom da koy làmbatu comme par exemple lañ nañ ko gis léegi léegi bu ñëwoon tey par exemple ñu daal di cliquer ci tàmbalee fii donc jarul ngay bës fenn looy def lu dul rek da ngay def lan. suure bi ngay xëcc rek toppale ko si fi nga xamante ni foofu la war a jaar donc boo ko boo ko ci toppalee da ngay gis moom automatiquement moom mooy lan mooy créer point yi nga xamante ne nga doon créer ci sélection bi utiliser sànq comme ça ok moom mooy créer point yi automatiquement donc boo ñëwee ci genre cornet yi nga xamante peut-être Euh, daf ko dafa dafa créer foofu ay points yoo xamante ni peut-être ni mu ko créer wee jaarul yoon bu boobaa nooy def yaa koy créer sa bopp da ngay cliquer lan daal koy créer wal sa bopp quoi points yi boo ñëwee ci corner yi moom bu fekkee dafa juum sélectionné ko sélection bu baaxul yow lan da koy lan da nga koy rectifier ni nga koy rectifier mooy lan dangay def lan delete donc boo defee delete après nga daal koy lan kereel sa bopp quoi. boo bàyyee xel bu baax man bësuma dara donc souris bi rek laay jël euh, toppal ko ci point yi nga xamante ni moom la war a jaar donc moom Photoshop moo koy mooy créer point yi automatiquement euh, ci lan topp li nga xamante ni foofu la foofu la foofu la foofu la sélection bi war a nekk d'accord bu ñu si resté ba ñëw ci point bi nga xam ne foofu ko defee lan ñu daal di cliquer ci point boobu rek après lan Photoshop daal di def lan daal di def daal di def sélection bi ok da ngay gis sélection bi mën na moo nekk nii donc bu ko defee looy def mën nga ko ñëw daal di def con da ngay bu la neexee boo defee contrôle xëcc ko daal koy nga ko bëgg par exemple wala nga daal di def copie bu la neexee nga daal di def ñëw ci move tool bi aussi tamit daal koy xëcc yóbbu ko fi nga koy bëgg a yóbbu donc yooyu yëpp ay yoon la yoo xam ni mën nga faa jaar ba daal di def lan ba daal di euh, ba daal di xëcc li nga xamante daal koy teg fi nga xam ne moom ko bëgg a teg par exemple bu ñëwoon fii ñi nga xamante ni moom lañ ko indi léegi donc boo ñëwee nekk nii donc mën nga ko def contrôle T boo defee contrôle T daal koy euh, adjust fi nga xamante ni moom nga bëgg mu nekk fa par exemple euh, boo koy adjust da ngay defaale shift nga xamante ne dinoo def dimension yi mu toll comme ni nga xamante ni moom la war a toll saa mu yokk saa mu wàññi ci ko yi donc da gis ni lan Euh, moo nekk après nga daal def euh, ok donc euh, sélection bobu moo nekk noonu bu ñuy wax lasso tool donc mom non lay fonctionner di leen jox dig dajeeg suñu vidéo bi di ñëw inshallah nga xam ñu ngi ci fassé yéene ñëw wax ci euh 3 troisième sélection bi tam moy lu aju ci wàllu object sélection ak quick sélection tool ak magic sélection boobu mooy magic original bi nak <laughs> ok nek leen ci jamm salam salaamaaleykum wa rahmatullah